الله يسلمك الخير لا يسلمك الله الخير لا يسلمك لا اله الا الله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن المال من نعم الله على العباد وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ولا شك أن المال ضروري لقيام حياة الناس في مصالحهم ومعاشهم والأقلاء من الناس يعلمون هذه الحقيقة mbokk jullit yi ginnaaw munu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mooy sunu xutba mooy al israaf wa tabzir mooy yàq gi nga xam ne réew mi ñu ngi ko yàq seen alal ak pasar pasare al israaf wa tabzir mooy yàq ak pasar pasar gi am ci réew mi baatub israaf boroom xam-xam yi biñ koy firi ci làkku arab ñu ne ma unfiqa min gayri taaqa aw it tabzir aw il mujawazatu lxadd baatub yàq ci arab mooy lépp loo xam ne dépassé nañ ko ba mu ëpp niñ ko waroon joxe wala ñu def ko fuñ ko warul def bu fekkee ci sharia islam mooy mujaawazatul haddi al i'tidal fa am lughatan am shar'an mooy ci sharia islam jaamu yàlla bi jël alalam def ko foo xam ne waru ko fa def wala nim ko defee mu ëpp dafa waroon joxe téeméer masal mu joxe junni te xam ngeen ne alal dafa bokk ci xéewal yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko defal jaam ñi niamullah alal ibad xéewal gi gën a rëy gi yàlla defal jaam ñi mooy mu may leen alal ndax bokk na ci yenn façon yoo xam ne yenn anam yeeg yenn wàll yi nga xam ne day tax taar di feeñ ci doomu aadama moom alal ci dund àdduna bi nu nekk borom bi tabaraka wa taala mu wax ci quraan mu ne alal ak doom almaalu walbanuun mu ne ziinatil xayaati dunia dafa bokk ci li taaral àdduna almaalu walbanuun alal ak doom daa bokk ci teraanga yi nga xam ne yàlla moo ko defal doomu aadama waaye muy feeñ ci moom guddeeg bëccëg mu koy taaral kon doomu ndey sikki sàkka nekkul ci ne an almaala daruri li qiyaami lxayaati nnaas moom alal jooju lu mënul ñàkk la pour dund doomu aadama mën a sax dund doomu aadama mën a baax alal jooju mbokk yi mënu cee ñàkk pour ñu lijjanti seeni affaire ak seen dund baax kon alal jooju dafa laaj ñu am ko waaye ñi am xel wal uqalaau min annas ñi am xel dëgg-dëgg ñoom sax comprendre nañu wàll woowu xam na ne danoo war a yëngatu ci seen àdduna ba yàlla dénk leen dara ñu denc saa ñoo amee jafe-jafe feebar wala wala wala ñu coppati ci lële régler seeni problème wa lihaza tarahum moo tax nga gis leen ñoom ñi muus ñooñu ñoom ñu al am xel ñooñu ñooñu nga xam ne am nañu diine muy ñett lañu boole du ñu yàq seen alal mukk ci lu amul benn importance du ci ngénte du ci ceet du ci jët dëj du ci du ci mukk doo leen fekk mukk ñuy pasar pasaree alal gi leen yàlla dénk mbokk yi saa yu leen gisee ñoom ñooñu seen alal jaamu yàlla lañ ciy def ak dépassé li ñu war a def ci seen soxla pare nañ ci sax na jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne inna allaha kariha lakum salaasan yàlla bañ na ci yéen ñett ci hadis ba wax na fa idaatul maal mooy sànq alal yàq ko sunu sariya nag muy sariya lislaam mbokk jullit yi yanha anil israaf day tere yàq lu tax li ann al israaf min mabadi al axlaaq assayi ndax yàq alal dafa bokk ci jikko yu ñaaw yi foo gis ku yàq alal jikkoom rafetul ak nu ko nit ñi mën a tuddee boroom jikko bu bon la ndax looloo tax yàlla dénk ko mu yàq li ko yàlla dénk kenn ci ñun buñ ko dénkoon dara mu yàq lool ki ko dénk su ñëwee lu mu koy wax yow ku bon nga même bu dee sa doom même bu dee sa jabar boo ko dénkee dund kër gi mu yàq ko boo ñëwee xas ko kon ki yàlla dénk alal mu yàq kooku naka la nit ñi di waxee ku baax la te tey Sénégal yàqkat yi mooy ñu baax ñi te ñooñ ñu bon lañ ci kanamu yàlla tabaraka wa taala te ku bon ci kanamu yàlla ku ko bëgg a baaxal yow ku bon nga ndax bu waa ji gëmoon yàlla du yàq ndax sharia day tere day tere yàq borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quran kulu wasarabu waaye mu ne wala tusrifu limaza inna inna allaha la yuhibbul musrifin lekk leen lu leen neex naan leen lu leen soob waaye bu leen yàq de lekkal li nga war a lekk naanal li nga war a naan dépassé li nga war a dépassé waaye bu mu ëpp li nga war a joxe rek joxe ko yàlla nee na man yàlla subhanahu wa taala innahu la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàqkat yi min asbaabil israaf dafa bokk ci sabab yi tax nag nit ñi yàq tey ci juróom-ñaari tomb yu tax nit ñi yàq tey alal bi ci njëkk mooy jahlul musrif bi taalimi diini jahlul musrif bi taalimi diin allazi yanha anil israaf bi satta suwarihi li tax waa ji yàq mooy dafa réere lislaam dafa réere njàngale lislaam lislaam mi tere façon yàq yépp nag yépp la tere kon saa yoo gisee yàqkat li ngay njëkk a jàpp mooy kii amul diine benn ñaar xamul diine ñett déggul islaam moo tax muy yàq looloo tax yàqkat yépp amuñu diine doo gis mukk ko am diine lislaam di yàq alal ji ko yàlla dénk comme ni ñun nuñ koy defee ci télévision yi da ngay gis ku taxaw rek di sànni gars yi di xëccoo ci waxtu woo xam ne ay nit a ngi tëdd ci hôpitaux yi amuñu ordonnance allahu akbar ay nit a ngi xiif ay nit a ngi mar ay nit a ngi rafle ci waxtu boobu ngay gis ay politiciens ay ay ay ay ay di yàq alalu réew mi xoolal problème yi ngay dégg ci réew mi mooy yëpp ay milliards la journée bu nekk bis bu nekk nga dégg kaso gaa yaa ngi dugg kaso ay alalu àdduna bi alalu alalu jullit yi alalu miskiin yi alalu miskiin yi moom la ñuy jël di pasar pasaree waaye mbokk yi loolu yëpp li ko waral rek mooy ñàkk dégg diine dafa ne mbirum politique ci àdduna la yam moo tax nga def lu la neex waaye wallahi kuñ ci jële ci morgue bi daal la lay jaarale ci sa kër ci bunt bu ndaw bi dugal la ci morgue bi waajal la yóbbu la yóbbu la ci armeel yee wallahi azim ñu gas ba mu xóot ñu suul la nit ñi ñibbi nga rëcc la doon juddoo ci alal bi nga doon lekk te daganul ak alalu nit ñi nga doon yàq ak alalu réew mi nga doon sàcc wallahi azim wallahi azim yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp yàlla yàlla wërsëgal ñu ñu gis dëgg ñu wërsëgal ñu topp yàlla na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون إخوة الإيمان قلنا من أسباب الإسراف جهل المسرف بتعليم الدين الذي ينهى عن الإسراف ثانيا النسأة الأولى وخنا سبب يتخ نتني يق بتنجك موي رير نجانغال دين رير الإسلام ñaareel bi mooy juddi ci yàq boo juddoo fekk ñi la encadré sa ndey ak sa baay ak sa famille nekk ay yàqkat foog nga nekk yàqkat ndax olof yi nee nañ lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam bu fekkee papa ji tëggkatu sabar la yaay ji tàccukat la kon doom ji foog mu nekk fecckat nit bu juddoo ci famille bu yàq ndey ak baay maam ak ñëpp li ko wër ñëpp nekk ay yàqkat kooku fokk mu nekk yàqkat kenn mënu ci dara parce que ci deret bi lay daw yonent bi nee na deret day wala ngaan al araqu dasaasa yore nee na siddit day wala ngaan day dem kon bokk na ci tax tey nit ñi yàq benn mooy ñàkk xam lislaam ñàkk xam jàngale lislaam ñaareel bi mooy judd ci ay famille yoo xam ne ay yàqkat lañ ñetteel mooy al ghafla ani tabiati lxayaati dunia allahu akbar ñàkk a xam rek tëralu àdduna doxalu ne àdduna dafa ne tey rek day bis bu nekk day neex bis bu nekk da ngay am doo mu sa xiif doo mu sa mar doo mu sa ñàkk jàpp ne li ma yor du jeex lakk sax jeexalu ko loolu ngay dégg yenn saa yi doomu aadama nag bu amee conscience bu mel noonu yàqkat lay doon mooy ñàkk a xam doxalinu àdduna ñàkk a xam tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci adduna bi ndax wa tilkal ayam nu daawiluha bayna naas da ngay xëy wër këng balaa mi di ñu dégg la hôpital nga xëy wër balaa fajar nga faatu waaye nga xëy am balaa ngoon nga ñàkk tey am na ci réew mi ñoo xam ne démb ku leen daan dégg nga leen di gis tey boo leen séenee yërëm leen lu ko waral mooy tëralinu àdduna kon li tax doomu aadama di yàq yenn saa yi day ñàkk comprendre doxalinu àdduna mu jàpp ne moom dootul ñàkk lu ko neex na def fekk bu guddee fan tuuti rek mu rëccu ne démb ay bu doon tey waaye fekk rëccu wees na kon yàq bi nit ñi di yàq tey ñi ci ëpp mooy ñàkk xam démb lu xewoon moo tax ak doxalinu àdduna ñeenteel bi ci li tax nit ñi yàq mooy asiata baada diq awil yusr baada al usr léeg-léeg benn waay xëy rek am alal fekk démb wala kaana la woon amul dara rek mu fuuy commencé pasar pasare di yàq waaw maanaa am am bu bees moo ko dab bi ko am am bu bees dabee mu nekk yàqkat fuuy commencé di def lu ko neex di pasar pasare alal ji loolu day tax yenn saay doomu aadama nekk yàqkat awil yusru baadal usru wala yenn saa yi moom waa ji day nekk jafe-jafe di tolof tolof di jóg waaye mu jékki-jékki rek alal ji tuuru wala mu jiite alal mujjee nekk koo xamante ne ndeysaan day ñàkk loolu day tax yenn saa yi ñaari bu ci dab doomu aadama rek doomu aadama nekk yàqkat juróomeel li tax doomu aadama yi di nekk ay yàqkat mooy suhbatul musrifin booy ya boo boo àndeek ay yàqkat li la wër yëpp nekk ay yàqkat doom jabar ay mbokk ay àndandoo nga bokk ci association yàqkat yi nooy mel nooy nekk looy def nooy mel yàqkat ngay doon parce que da nga ànd ak yàqkat yi te yàlla subhanahu wa taala xas na yàqkat yi ci alquran nee na innal mubazirin kaanu ixwaana shaytaan te wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura sunu borom nee na yàqkat yépp ay mbokk seytaane lañ waaw kon yàqkat ak ku mun doon yàlla nee na seytaane la te seytaane yàlla nee na dafa weddi boromam subhanahu wa taala kon jullit du nekk yàqkat doomu ndey yi nañu moytu kon ànd ak yàqkat yi ndax ñii yàq seen alal ji leen yàlla dénk yàlla nee na ñooñu ay mbokki seytaane lañ juróom benneel di tax nit di nekk yàqkat mooy hubbu zuhur wa tabaahi mooy li xew tey bëgg a feeñ bëgg ñu dégg la bëgg a siiw looloo tax ci ngénte yi ñuy yàq da ngay romb benn ngénte loo xam ne parce que góor ñi léegi amatuñu responsabilité ci seen kër yi góor ñëpp léegi ay sër la ñuy takk jigéen ñey woddoo tube yi ñooy takk gaño yeeg ceinture yi ci kër yi amatul benn paa buy wax paa bu wax buñ la nee hee nga noppi nga gis ngénte lu commencé fajar ba kat ba 6 heures du matin nit ñi di julli ji fajar romb ngénte li tasagul maanaam ngénte li day nekk 24 heures sur 24 heure bi day dem ba dellu soir fekk ngénte li tasagul yenn saa saa nga gis ngénte lu am ñetti fan ñu koy préparé jour tudd bi dañuy làng léegi guddi gi sax la ñuy làng guddi gi lang jëmale ko kañ julli fajar loolu ñuy lang lan la yàq allahu akbar yàq lu nekk ñu joxe te duñ ci am yàlla duñ ci am yonent ba pare dañ fay jóge soo demee ñu ne moo da doon jaay maanaati dara nag la dara la fi indiwul matalewul tus ndax joxul diw ak diw gis nga après fu mujj mooy sëy bi day tas parce que yàlla taxul loolu moo ñu sonal yàlla du tax te yàlla moo war a tax ci sunuy jëf imagine leen ngénte lu tàmbali 7 heures ci suba nga xam ne dañoo waroon tudd wat ren di rek affaire bi jeex ñëpp ñibbi waaye xoolal tey day yendu ngénte li day yendu fanaan parce que borom kër yi ñoo matatul ay borom kër ñemeetuñu wax jigéen ñey diriger te bépp kër bu nu làng yàlla amatu fa maanaa pare na ci tey li ci ëpp rek mooy bëgg siiw loo ñu wax léegi ngénte yi noonu la ceet yi noonu la ba ci dëj yi dëj semaine bi romb naa dëj bu ñu rey ñetti nag cin yi da ngay compter ba sonn te terewul bi ma wàccee guddi dañ ma ne dëj bi genn wàll gi yëpp añuñ billahi wallahi taala ak ajjuma tay bi dañ ma ne dëj bi genn waa léegi añuñ te ñetti nag lan rey loolu ban diine la ban diine la ñu gis ñuy rey ay dëj ay ay nag ci ay dëj ban diine du lislaam de yonent bi da dégliwu ko xaw ma ban diine la nag waaye du lislaam moo tax ñun li ñu sonal mooy bëgg a nekk ay jullit nekk ci lislaam te du ñu def lu lislaam wax xoolal ku dee yonent bi ne dem leen ngeen sang ko sang leen ko suuli leen ko ñibbi leen allahu akbar ñun dañuy dem jëndi ay nag yamatuñ sax léegi ci benn dañuy luwe ay ba ay bayaal teg cinquante cin loolu ban diine la bëgg siiw rek bëgg siiw loolu moo ñu lo- sonal yàqkat yi xoolal léegi looy gis waykat yi anniversaire yi dañ koy téléviser direct nga gis waa ji ñu tuddee affaire bi taxaw yore ay billets di sànni parce que liggéeyu ko wallahi lazim liggéeyu ko soo ci pikkoon ay pikk ba sa loxo yi fut wala nga bale ba sa ndigil yi metti wala sa tànk yi metti wallahi buñ la ci fayee 200 francs allahu akbar doo ko sànni parce que alal ji dañuy dem di jël alalu ji alalu julit yi alalu miskin yi loola tax nit taxaw ñu lay ñuy tagg sa maam ngay sànni ay billet di sànni ay billet ba ci yàgg billet yi jeex nga simi sa garam boobu sànni ñëpp di yuuxu parce que xam nga ne liggéeyoo ko wallahi boo doon yendu ci naaj bi 24 heures sur 24 nga def ko 10 ans di yendu ci naaj bi wallahi million boo ci am doo ko yàq waaye parce que liggéeyoo ko xamoo nu mu ñëwee da ngaa ñëw rek ñu ubbi coffre-fort yi ne la milliards yaa ngi yaa ko géré loolu neex nga def bëgg siiw moo tax nit ñi nekk ay yàqkat bëgg siiw ak bëgg a feeñ ak bëgg ñu dégg la moo tax ñu nekk ay yàqkat juróom-ñaareelu tomb bi li tax ñu nekk ay yàqkat mooy al muhaakaatu wa taqlid mooy toppandoo ak al toppe toppandoo gis diw def na danaa def diw ba muy ngénte nangam la def dama koy def diw bu muy takk nangam la def dama koy def diw bi maamam deewee nangam lañ def dañ koy def diw bi muy woote anniversaire nangam la def dama koy def loolu moonu sonal mbokk yi ab julit du nekk yàqkat ab julit na yëg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal an arbaa xisaal nit bu ne cëpp yawma alqiyama ñu laaj ko ñett yonent bi wax na ci mujjantal hadis an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu alal ji foo ko jële danañ la koy laaj waaye foo ko dugal danañ la ko laaj bu fekkoon ne loolu gëm nañ ko kon du ñu nekk ay yàqkat allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna bada almawti birahmatika ya arhama arrahimin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
بسم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا